tali yu bon ay jafe-jafe assainissement ñàkkum kaaraange problème mu électricité bokk na ci coono yi population yi Baxdaad yi di jànkonteel saa su ne gannaaw ba ñu amalee ab waxtaanu biir ngir xamal maire bi di Modou Gueye ndax Baxdaad moom daa bokkul ci commune yu Djiddah Thiaroye Kaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu rote ci. waaw liñ bëgg a dégg bëgguñ dégg lu ñu neex liñ bëgg a dégg mooy dëgg tali bii nii. moom mooy tëli bi jëm ba marché bu bees mooy tëli ñetti mbaar yaakaar naa boo ne ñetti mbaar ñëpp xam nañ ko quoi tëli bi moo jógee Texaco dem ba marché bu bees daanaka ñun depuis bi ñu nekk xale ba léegi tëli bi baaxul. Euh, beneen bi aussi tamit mooy quartier bi nga xam ne nii moom lañ dëkk muy Baxdaat bokk na ci quartier yi nga xam ne moom lañ gën a négliger si Djida Thiaroye Kaw. yan nañu xale yi xale yi oto yi léeg-léeg ñu bëgg leen a féer ah di leen moytu loolu rafetut te Modou Gueye na fi te Modou Gueye ba muy campagne. dafa ne woon a ah, bu soobee yàlla na bu ngeen ma falee bu soobee yàlla li ngeen bëgg dinaa leen ko defal léegi Modou Gueye falu rek daal di daal di daal di kongam lu toog loolu baaxul a ah, damane ne bés du ah, dama ne bés yoo ngi ci bés yi bés boo gis day day lebel bés wala muy fay bés bu bés jotee nag bu la nit ñi soxlaa woo ci bés bi gisuñu la ci bés bi ah monsieur bés jikko yi boo ko gis. jafe-jafe assainissement di weyel di tek ciono ak njàkkare askan wi yawo fi ci bahdad sunu domi sax da no yeuram parce que ñun no yano yano yano gis nga ko ni ma wowe ba mes am ñu rigol te monsieur le maire bi muy campagne fi la taxaw man mi la waxal ba waxé mayor sama bol ne ko dong dong dong mu ne man bu ma falo dina la jëndal orchestre ñepp xaxaloo ree ma ko bëgguma orchestre waaye nan am ay canalisation ak ku nu yëg sunu tali bi heure bu nu de man dama daan seeraat laa daan liggéey waaye gis nga ko damaa sonn ba banaa ñun ñëpp a tas ndax sunu tali bi ñëpp a koy jooy bu ma yeboone jidde caaray kaw ba marché bees ñun ñoo ci gën a pauvre ñun yëgunu suñu bopp dara dara dara dara ci nguur gi naki noonu askan wi di béral seen ñàkkum mbégte ñàkkum yëg seen bopp ci wàllu financement ak lu jëm bourse familiale yi tax ba ñuy sàkku ci maire mu geesu leen amuñu dara déggoo li ma la de dara ñun af amuñu financement waaye yàlla mooy suñu financement ñun waaye bu sa sañoon nag am li suñu naw li am ndax kenn gënuñoo jub ñun jub nañ bëgg nañ lu baax waaye ñun amuñu ay financement amuñu amuñu bourse yi ñuy joxe sax fatu baarakaal la ñun amuñu ko bourse familiale bi man de bu ma see dugg sama gémmiñ yàlla naa yem fii amuñu ko ah d'accord ah, waaye ñun amuñu ko amagun ko book amagun ko ñun jidda su nduq bi baxdaat gi ñun amagun ko li fi nekk rek laa lay wax gis nga du ma tax jàkkaarloog télé bi du tax ma wax la lu amut bëgg ci xaalis Modou Gueye bi mbaa ma bëgg ci xaalis gouvernement bi du tax ma wax lu ma amul ndax ba ma juddoo ba tey depuis 63 maa ngi tedd maa sama nawle yi taxaw te waxuma te te ñoom tëralun ma danoo bëgg nag jot na ñu wax sunu xol li ci nekk ñu teral ci li ñuy teral ñi ndax nit ñi gënuñu ñu. magu gox di fàttali Modou Gueye ne loxoy kajoor dafay weesaloo. ah li ñu xaar ci Modou Gueye mooy mu ñëw dimbali leen nañu dimbali ñu nañu leen dimbali defar canal yi defar tëli bi defar ko ay poste canal bu du dara ñu def ci ay tiwo mu dem ci canal bu mag ba bu bu jigéen ñi yenootee seeni i ndox duñu sonn ñëw tuur ko ko yónni sa doom sax mu ñëw tuur waaye jigéen ñi dañoo yenoo yenoo yenoo yenoo yenoo ba xuugee bon deug bi moy ñu wax ñu ñom lan lañ mën ak lan lañ mënul su ko defee ñun yenn attente yi ñi xaar ci ñom ñi xamné ñom du ñom ñokay safar moy 1 deuxièmement aussi tamit moy comme défar talé compétence état la ñom aussi euh, relation yi ñu am ak état que ce soit muy état bi fi nak ak prochain gouvernement bu fi ñew we don't know ñu jéem a utiliser relation yooyu pour mën a defar tali bii nii quoi ndax tali bii nii ñu fi jaar ay junne junne nit la. gannaaw ba ñu biralee seen ña seen ñaxtu ndaw yi baxdaat yi di wéyal di am yaakaar rek ci maire bi mu tax mu taxaw ci jafe-jafe gox bi ci wàllum assainissement formation ndaw yi.